Xalil kii kii grand doo ñëwee nii maay booy doo ñëwee nii pour nga mën a jël. ah ñu dégloo ñu dégloo ah. bu baaxee ñu dem c'est bon ah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuy bu baax a baax di leen siyaar fu waaye nekk rek si réew mi ak si bitim réew te ñuy siiwu tey nag ñoo ngi fii suñu kër maam muy Fassane Balde si buntu kër bi. Pathé Baldé nag moo def open press am ginnaaw ba mu gëjee bëri lool lool lool bi mu dellu see nag sénégalais yi namm ko lool macha allah mu saf réew mi ak bitim réew ba ñëpp di ko suivre ba tax na Abdoulaye Ndiaye jël làmb jox ko muy lundi la 25 décembre mu war a bëri ak ki nga mooy Safi bu Thiès Safi nekk champion bu mag boo xamante bi ni ñëpp xam nañu ko foofu mu nekk bay fa waara bu baax a baax. yaakaar naa ne nag Pathé comme ni nga ko waxee bala ñoo dugg ci open press bi rek comme ni ñu koy waxee ni ko Pikine Dakar waxee dañuy woo autorité Pikine yi ñi fi nekk ñëpp te nekkal fi li nga xam mooy état ak ñi fi nekk yor fi ndombal tànk ñu ñëw jàpp ci combat bi képp ku jàpp ci combat bi nag na la woo sa numéro wala mu woo Pikine Dakar wala mu woo Abdou Diouf parce yaakaar naa ne pour l'instant nag làmb yi bari na lool te lamb soxla nañ ci mobilisation yaakaar naa ne tamit ñu ñëw fekk fi Pape Sarr suñu grand tamit Pathé dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi jublu si liggéey bi bismillah onze billah mina seytaani rajim di sama papa fu mu nekk yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yéen di sant di gërëm sama yaay di gërëm ñëpp waaw di sant waa Pikine di gërëm ñëpp di gërëm waa Kolo nuyu waa presse bi afay royu di nuyu di nuyu àdduna waaw ok am na solo Pathé tey so open de presse nga ñëw fekk fi famille Balde yëpp teew fi Pape nekk sa ginnaaw waa Pikine bi yëpp génn yaakaar naa ne Ameth moo ngi nii sa ginnaaw Abakara tamit ñu koy sant bu baax parce que banderole bee tamit ginnaaw bu amee. bam jox ko waa unité 15 ñu andi lako ci loxom la jaar ñuko ci ciy sant bu baax ana tay ban yeg yeg nga am sa open de presse nga ñew koñ bi yëpp fess wa di gërëm ñep affaire yooyu kii bi la ah mekkati la woon affaire yooyu <laughs> waaw ma mon ni affaire ay jafé jafé motax mu démé ni sax tey ah, waaw waaw mekkati lañ ko ci woon nag ki bo waaj affaire far xam rek moy lolu far galankor am si di gërëm wa wa unité 15 di gërëm ñep di gërëm tamit ñom Tafa mbeur ñom Ñang balo di gërëm ñom gëro séras di gërëm ñoom ñëpp di gërëm ñoom Tafa Mbar ak ñoom ña ñoom gërëm Seera ak ñoom ñang Baala ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax fii lañ jógee affaire yooyu waaw di leen gërëm bu baax di gërëm waa Intercaisse di gërëm waa Parcelles ñëpp waaw di gërëm waa Pikine di gërëm ñu may jàppale ñëpp waaw ok ci ñaata séance nga nekk nii da ngaa yokk séance yi wala wàññi nga non non mosuma yokk séance sax mooy loolu da ngay maintenir da ngay maintenir nii sax wóor na yàlla da ngay maintenir sax nii nii nii rek na mooy ok Babacar Babacar fi Abou CFA Serigne ak gars yi fi nekk rek makan ko am question mu ñëw mais Pathé. waaw bëre ku toll ni Safi di champion mujjee daan booy Morola. waaw Thiès bi yëpp xam ko àllu Thiès bi nga ne da ngay maintenir euh, Safi am na doole de Pathé. ah garaawul loolu dara waaw loolu la vingt cinq ñu xam ne ba xam am na doole wala amul doole nee na moom mooy dox sama kaw. na dox ñëw rek bu doxee ñëw mu xam ne lépp dëgg la. waaw bu doxee ñëw mu xam ah, demee bu gërëm lay doog a comprendre waaw. la nga waxoon signature ba ne da koy dóor mu toog bu doxee sa kaw yaa bu doxee sa kaw yaa ngi ma dóor ko mu toog ma dóor ko duraat mu wàcc. ok ok takkusaan googu nan la war a ñëwee parce que takkusaan gi tamit takkusaan bu rëy la ay grand combat kese nekk ci ñu jël la def la huitième position xaw ma septième yaakaar naa ne nag kon loolu lu am solo la Pathé. ah di gërëm ñëpp di ñaanal Sokh ak Valdo waaw ñun waa Pire ñëpp ñu di ñaan di yàlla ñun ñëpp yàlla may ñu si dam waaw. jour boobu nan nga nar di ñëwee rek laay ñëwee waaw. waaw lan lay jënd ragal si ndox. waaw amul lay jënd ragal si ndox waaw. Babacar. saafi. ay amoo ay ku saafi dara lu si moom xanaa ma tiit si moom ku saafi sax tiitu moom waaw moom Pathé Baldé 2016 waaw yàlla def ni Maximil. waaw est-ce waaw est-ce que moo ëpp Saafi moo ëpp ma kon loolu rek mooy loolu ku kii sax mooy yaa ma gën a xam. waaw affaire mooy loolu rek di gërëm waa Pikine di ñu ma jàppale di gërëm Asin ak Baye Ndiaye ak seen mag di di gërëm Kéba Kande di gërëm Jabira Nourula di gërëm moodu Gueye waaw <coughs> waa Pikine bu mu daj amul ku ñëw moodu Gueye doomu moo fi ñëw yeneen gars yi dañuy wax nii rek dañuy xaañu rek di wàcc wàcc di wax rek na ba tooy. non entraînement yi moo léegi léegi Pikine Dakar yéen di jotawoo balaa naan ndox naanal ndox. ok man dama ba sonn. waaw amatuñ ku ñuy woo. waaw woote waata Pape Sarr woote nañ ba sonn suñu mag Pape Sarr na lu si des dina ko yeggali. Hmm. bari sëñ Fall mais ñun ku ñu war a woo woo nañ la. Hmm. nga ñëw jàppale suñu bés bi. ndaw hmm. bés kenn du ko tuutal. waaw ki na bésam bi tuutaluñ ko. ni ñu yóbbee Ama Baldé lañ koy yóbbee si kàttanu yàlla barki ak ndam. mais mais woote waat leen autorité yi ñu ngi leen dégg. Ah, la ñu dañoo woote ba dañoo woote ba tooy woote waaw noonu la demee nag. ba léegi boobu ba léegi ñu ngi woote. waaw dañ ne nag dootuñu woowuti kenn mais Pape Sarr a ngi nii xëy na dina am ñeneen ñu mu woo. woowu ma kenn Pape Sarr ay eh, eh, yàlla am na eh, yàlla am na beneen yàppandul géej gi mooy loolu. waaw ku ñëw ku ñëw baax na ku ñëwul baax na mooy loolu ñun xoola mooy loolu ñun ay Baye Fall lañu. waaw ragalu ay man ragalu ma foofu jëm de. mooy loolu waaw am gën a xam waaw. waaw dañuy waa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu presse bi du nuyu tey waa Pikine waa tey di kontaan bu baax ci Keba Kanté moom ñëw na yëkkati na xaalis bu bëri may paate <coughs> waaw Jamil Nuuru laa moom it ne waa Pikine def ñi moom Modou Gueye Modou Gueye mais autorité Pikine yi lan la nañ ko jàppale nañ jàppale paate parce que ñoom daawuñu seetaan kenn ku dul paate maa ngi leen ciy woo xam nga lii dafa ñaaw benn Modou Gueye ci autorité pikin moo si jàppale Paate Balde loolu ñu rafetlu wuñ ko ay bon volonté ku mel ni Jamil Nuuru laa moom it loxoom ñëw na maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm tamit suba benn doomu nday tey dafa dugalal paate xaaj ku ñuy wax loo moom mu ngi ba Espagne ñoom it ñu ngi koy woo ñu ngi woo tamit ñu nekk diaspora bi bu Pikinois yi fa nekk nañ ci teg loxo gaaw jàppale ko waaw fi mu toll nii li ci des mooy li ñu jëndal booy yi bi billet ñu ngi gërëm tamit waa Gambie yëpp ñu déplacé wu ñëw ñoom ñëpp di gërëm suma frère bi Pikine Dakar ak ñi doon jàppale paate ci entraînement yëpp ci ak waa écrit bi ñoom euh, Pakola Jacob Babacar su ma limee damay juum maa ngi di ne waa kër gi yëpp ak ñi fiy fanaan am na solo Pathé euh, waaw si jasinaire waaw jàpp na si bu baax jàmbaar yàlla na ko yàlla defal jàmm. waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm mi ngi jàppale ñëpp. mi ngi jàppale ñëpp. tamit moo def. waaw tamit gërëm bu baax Abakara. waaw ñu koy gërëm ok ngay mujjee wax Safi parce que instant nii buñ juumul yaa ngi ci entraînement ba fi mu ne nii da tooy kon instant yii dallu rek moo la war lan ngay wax Safi ah moom na ñëw rek na ñëw rek bu ñëwee moo xam ne lépp dëgg la na ñëw rek waaw ah dana ñëw gañ waaye na ñëw na ñëw rek mu eh, ne la kuy dem arme kuy dem guerre doo doo firi say arme nga da ngay denc ba yegg waaw ba egg fa ah waaw nu mu aajowoo rek waaw nu mu aajowoo rek dégg nu mu aajowoo rek. ok lan ngay wax Baba Diaw mi tëgg sa combat. Baba Diaw di ko gërëm di ko ñaanal am waa Espaam yëpp di ko ñaanal. di ko gërëm moom Abdoulahat ñoom ñëpp maa ngi leen ñaanal di leen gërëm. waaw yàlla dafa leen jàmm affaire bu seen bis bi réussir si jàmm affaire yooyu. waaw wala laa bàyyi nga dem nelaw yi nag. waaw pour nga bëre ak moom kon Pathé nag gars ah, xaj nañ si. ah ku dul puudar sax xaj nañ dem ndànk rek <laughs> ñëpp xaj nañ si ah. waaw. ana ana ana Jacob Jacob yor lu yor ci jour bi lu mu war a indi. lu mu war a indi rek lay waaw da koy indi rek moo moo Babacar moo ak booy écurie bi yëpp mooy loolu de. ñoom amen ñooy waaw waaw waaw yaa ma gën a xam rek. waaw. Demba waaw Demba Demba moo yore dernière affaire. Ah. waaw moo gine yëpp. waaw. kon kontaan nañ. maa na gën a kontaan di gërëm yen waa presse bi yëpp affaire yooyu waa yàlla dafa leen jàmm. waaw di gërëm ñoom Moussa ñëpp affaire yooyu di gërëm ñoom Baye Ndiaye Aziz Ndiaye di gërëm Diego waaw yoon Diego jàpp nañ si baax di gërëm Diego sama njaago bi mooy loolu kooku mooy njaago sa sëñ waaw waaw di gërëm waa Buntu Pikine sama mafia bu nekk Pikine di leen gërëm affaire yooyu di gërëm waa Pikine yëpp di gërëm sama di gërëm Keus benn tali maa ngi koy gërëm keus waaw di gërëm aas di gërëm aas ak jabaram di gërëm ñëpp